alors bi maa ngi taxaw nag euh, animateur bu mag bii bi doonatul ku ñu leen di présenté Momo Momo bu Sen TV moom la ñu taxawal ñu fekk ko aussi ci bés bii nga xamante ne mooy guddi bu mag bi nga xamante ne rek moom la waa Polygame euh, daal di organiser Momo ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax di nuyu internet yëpp di leen siyaar bu baax a baax baax aussi. alors tey ñu fekk la ci bésu waa Polygame euh, tey mën nañu xam lan moo waral sa teewaay fii. waaw mais xam nga ñun moom euh, ci monde culturel la ñu nekk donc moo tax ku xewle ci wàllum culture on essaie tant bien que mal ñëw xam nga jàpp si xam nga pour que pour que mu gën a jëm kanam quoi parce que on le fait pas pour polygame on pour la culture en général nga euh, d'autant plus que ni ñoom am na liggéey bu am solo boo xam ne ñu ngi koy def tey bu ñuy wax polygame bokk na ci série yi gën seetaan ci Sénégal donc moo tax tey ñu ñëw xam nga euh, def acte de présence pour vraiment dooleel leen bu baax a baax parce que nag liggéey yu mel nii baax na ci ñu leen di dooleel quoi donc loolu. tey naka ngay gisee polygame bi ñu jël indi ko sur scène. c' est une très bonne idée c' une très bonne idée affaire yi foofu la toll en fait il faut il faut parfois génn ci zone de confort yi. xam nga parfois euh, nit ñi seetaan ci ginnaaw ci télé yi. dañuy bëgg di nekk en parfaite communion ak euh, ak ak ak artistes yi donc moo tax yu mel nii dafay baax euh, artistes yi di ko di ko initier pour mën di euh, passer moment yu neex ak seen ay soppe quoi. tey naka nga naka nga gisee série polygame boo ko doon décrire tey naka nga ko gisee yow. waaw série bu bu nice la série bu instructif la série boo xam ne sénégalais yi gis nañ seen bopp parce que série yi moom bu buy refléter les réalités sénégalaises rek je pense que ni. dafay cool quoi ñun li ñuy dund dañuy bëgg nit ñi di ko di ñu ko génneel à travers vidéo yi à travers série yu ni mel donc je pense que ni lu baax la pour la société sénégalaise. d'accord jot ko wax duñ ci jàpp. Ah. on va parler un euh, ci ci wax aussi ci dernièrement spectacle bi mm. ah. ce que bien sûr que si bien sûr que si. xam nga li ñuy def kenn moomu ko doomu kenn moomu ko keneen moomu ko tu ku ci nekk lii la si yàlla wërsëgalee da nga koy jël et puis nga nga nga doxal ko ni nga ko war a doxalee ñun on n'est pas dans la concurrence wala leneen ak leneen ak leneen ñëpp la cest à amul ku koy aaki moom ko moom micro ñëpp ko moom tu donc ku ci nekk sa wërsëg bu ci nekkee def ko nga gëm ko et puis nga nekk mais tey da nga wax ne yow yaay meilleur euh, meilleur animateur ñu gis la nga génn wax ne yow yaay meilleur animateur loolu yow ko waxoon n'est-ce kañ la woon loolu. ah déggoon nañ ko wax ne yow yaay meilleur animateur alors bi loolu bi loolu abee aussi mu mel ni dañu gis ki nga xamante ne mooy Kheucha mu mel ni ko la ah, xaw a tontu. je pour les détails. Mm. très franchement dama ñëw pour polygame rek. du ay détails. Ah, nekkuma fi fi pour tontu wala pour wax quoi que ce soit dama ñëw pour seetaan mm-hmm. loolu moo ma fi andi très franchement. ma xaar maa ngi seen TV wala fii la. sunu gaal 24 mun naa ñëw fi. ma nga ñëw mais gars yi ah man sax ku ne ma bon. Uh-huh. nga jot nga waaw. Ah, nga affaire yi moom gaa yi moom. donc da ngay mën mais man daal maa ngi Sen TV et maa ngi sous contrat Sen TV sama contrat jeexagul et puis je me sens bien là est que du a non waaye ah, y de meilleurs aussi là ah. <laughs> du dëgg. waaw am leen jàmm merci.